mbokk yi sëriñ Abdul Aziz Diaw di ku ñëpp ràññee ci wàllum ñaan yàlla boroom xaalima gi du laal suuf macha allah laal leen bant xam-xamam ak gëstoom ak ragal yàllaam loolooy li sabab réew mi yépp ak bitim réew jox ko bopp ay li ko wut xam-xam jaral gëstu xam-xam daf koy jaral dem fépp ci biir réew mi ak sax bitim réew daanaa leen wax lii di sedd li saxaar Afrique moom gisuma ku ko ci man Serigne Abdoul Aziz Diaw ni ma bu maa ngi feeg mbir mu yéeme sax ah waaw lan la mu ni ma xanaa li ñuy wax xorom si lan mooy njariñu xorom si mu ni ma bépp diggante bu yàqu bépp diggante bu ñagas xanaa dafa fekk amoo ci xorom si waaw secret bu doy waar la ci boole Serigne Abdoul Aziz Diaw mooy borom rus na maa xam nit ñu di ko jàpp ci gàllaaj rus na maa xam nit ñu di ko néewal doole ci xam-xam sangatu bayre moom benn la ci Afrique lépp lu jëm ci muslaay kaaraange dawal seeti Serigne Abdoul Aziz Diaw ma nga fële ca Thiès ca quartier ba ñu duppee Serigne Abdoul Aziz Diaw yow mi lijjanti ay kayit mu tëla gàllaaju kër xale bu të ay mbokkam bu lu jëm ci wàllu plante kenn mënu ko ci ci réew mi ndoxum góor gu néew kattan hémorroïde jigéen guddul yëg bànneex Serigne Abdoul Aziz Diaw mi ngi ceeg lu yéeme sax yow mi bëgg a jokkoo ak moom 77 571 87 63 wala 78 469 92 92 waxoon naa leen ni leen bu ngeen deeti ñaan yi nit seeni mbir daw leen seeti ku ragal yàlla te am xam-xam Serigne Abdoul Aziz jaw moom ma ci doy su ngeen bëggee dégg dëgg daal Serigne Abdoul Aziz Diaw ku mel ni moom ci Afrique benn la fi. Ousmane Sonko dañoo kar ab cortège am démb ay la yéwén ña ko karoon xam naa moo Modou sax bu ma ne am na ay image yoo xam dina ko wane ña leen karoon daal Assane li ñu nemmee ko te xool ko mooy fa lañ bàyyi seen wata waa mu ngi nii wata bii ñu leen karoon ak jakarta yi ñu leen karoon ñoo ko fa ba def leen daal dañ leen a duuma bañ bàyyi fa seen i wata ak seen i jakarta ni mes oto bi moom yaakaar naa bala ko boroom a jëfandikoo waat dana ko defaraat maanaam daal dina ci def xaalis bu bari pour jëfandikoo waaye nag euh, teewul Ousmane Sonko euh, ñu bari Sénégalais naan lu tax mu bëgg jëfandikoo rupture ba jëmale ko ci sécurité am euh, sécurité am mm-hmm. ndax premier ministre la mm-hmm. état bu Sénégal moo ko war a jox li nga xam ne mooy sécurité bu doy mais bu ñu gisee ci cortège am ñam daan àndal ña ko daan ba léegi ñoom ñoo nekk ci wetam ñu ni loolu nag jaaduwul parce que premier ministre la waaw ñuy wax loolu dañoo xamul rek ay ci waxal yow mi xam waaye Ousmane Sonko sécurité bu ko bëggee day dem si assance bu sécurité boppam lay jël su si bëggee dolli day génne xaalisam dem si agence de sécurité yi jël si dolli si comme ni ko kii yëpp defe bu doon élection yu mag yi nag kenn ku nekk danañ am yu la yu ndaw la loolu bu doon élection yi ngi tànnee njiitum réew ah. kenn ku nekk dana am limub takk der yu ñu lay jox mboolem kuy ñëpp rek tout mais yii nag kenn ku nekk yaay dem wutal sa bopp sécurité si agence de sécurité yi boo demee fay ñu jox la nga daal di fay ñu jox la ñoo xamante ay élément lañ yoo xamante mën nañu yor si sécurité durant li li ngay campagne kon nag noonu nga xamante ni moroomam yi def nañ ko moom noonu la def tey ji bu fekkoon jox nañ ko ñeenti sàndarma il faut que ñu jox keneen ñeenti sàndarma jox keneen ñeenti sàndarma mhm. moo tax nag kon mu ni donte maa ngi si nguur geet du ma sàkk loo xamante ni dama koy bañal ñeneen ñi ñun ñëpp nañ bokk yem Hmm. loolu yaakaar naa mooy premier ministre la dafa yor ndombal tànku réew mi premier ministre ban moo fi mas a jël ay gendarme ñu koy campagne mais état bee fi jógee bu ñu daan xaaral dama ne état bee fi daan jógee waaw wax dëgg yàlla seenub campagne hmm. daanañ yóbbu secrétaire non non non ah bon Mimi Touré na ko fi mosoo gis mu yor ay gendarme ñu koy campagne ay Mimi Touré lan Mimi Touré moo doonoon bii jàll hmm. ensemble yorutoon ay gendarme yóbbuwuñ yóbbutoon i gendarme sécurité la amoon boo xamante ni mooy bi mu war a àndal kenn ku nekk wut nga sécurité bala doy ñi tase nag di xeex loolu ab campagne la. waaw campagne ñooy tase xeex. mais xam nga Mimi Touré nag Assane nekkuloon premier ministre nag. Hmm? mais kii premier ministre la. Mimi Touré lu mu daan Mimi campagne boobu. Hmm? nekkuloon premier ministre moo ko Ousmane Sonko ah? kii nu mu tuddati ministre be kon bee waaye am na ministre bu kii ki kii rampali kii bun joon lu mu doonoon bi mu fii campagne. bi mu fii bi mu campagne. boobu yow lu mu campagne. moom laay laaj. Hmm, nga xamoon muy laaj nga bëgg a a bàyyi ba mu wax la. nga ne ko àndutoon ak kenn te tegoo ko fenn parce xamul <laughs> nga bëgg a da ah, dàpp ko parce que yow. xamul mën la neex. waaw nga a sukkandiku ci ndox. doo ko bàyyi foofu alaaj bàyyi ko man rek pourtant xam naa li may lalal de. Ah, xam nga dafay ni Mimi ma ne ko Mimi di woon premier ministre mu dem wër ji keneen. amul. Eh? Eh, yow moom moo may laaj wala mais day intervenir day intervenir <laughs> parce que premier ministre la dañ ko war a jox sécurité premier ministre la mais bu dee premier ministre moom moo doon moo doon moo doon tedd liste waaw waaw ah, bu ko doonee nag moo gars yi ñoo yem si si terrain bi non yemuñ ci terrain ah, kay ñoo yem si terrain bi ñoo yem si terrain ñoo yem si terrain bi waaw kon nag nañu nañu borom xam-xamay wax nangul naa la léegi nag xeex bi moom lii ab accident la bu am si ñu tasee kenn xamul ñoom doon

waaw benn rek mooy yooyu. te Assane dafa dafa dëgër fii te. eh déet loolu wax ni mooy di am de. waaw waaw ñëwal nangul nañ la léegi jërëjëf accident la Assane ñëwal. waaw accident demal man la mu am la xamuñu ñum doon tey jii. Eh, yii di am yëpp si campagne yi dafa dafa doon yoo xamante ni day jaxase bopp nit ñi. Hmm. ndax amaguñ si lu leer ni ñii ñoo def lii léeg-léeg nit ñi dañ am ñoo xam ne dañuy def dara ñu ne est-ce que du ñee sax ñoo ko def seen bopp. Hmm. da nga koy gis. léeg-léeg yi moom ñu xereñ lañu. waaw enquêteurs yi ñu xereñ lañ mais enquêteurs yi génneeguñ fi dara campagne bi moom li war a def rek mooy ñoom njiitu réew yi ñoom leader yi ñuy continuer di wote jàmm te di wax si jàmm te fuñ xam ne diwa nga fa ñu teggi fa loolu bokk na si jàmm. bu tegoo ci yoon loolu. bu Ousmane Sonko waxee ne suba maa ngi dem ma exemple maa ngi fa nekk heure bi ba heure bii bu Amadou Ba dee ñëw na bàyyi ba Ousmane Sonko génn mu dugg. d'accord. bu ko Ousmane koo déggee Fatick na bàyyi ba kii mu daal di dugg loolu loolu mooy tax jàmm am mais nag bu fekkee nee na diwa nga fee nga ne naa dem fekk ko fa loolu mënut a indi jàmm. d'accord kon nag nañ jàmmoo te xam ne li ñu tax a leen tax a jóg moo ñu defar Sénégal te am na loo xam ne day yàq Sénégal. d'accord. Mhm. mi ngi noonu alaaji euh, cortège Ousmane Sonko nag bu ñu ñëwee dañ ko kar comme ni ñu defoon bu abaatu lañu def maanaam dañoo dagg cortège bi noggatu ñeen ñu wala xeex am fa waaye loolu ba muy am moom defe naa gars yi ñemewuñoo kar cortège Ousmane Sonko naam am na sécurité bu doy waaye nag euh, est-ce que jar jotul itamit en tant que premier ministre ñu gën a yokk sécurité am ndax euh, dégg naa dem benn chroniqueur bu ko wax Ousmane li koy xaar a bari ndax dafa yëkkati dossier yoo xam ne ñooñu bëgguñu mu leer te bëgguñu am majorité ñooñu nag daf leen jaral lu nekk ci campagne bi est-ce que jotul kon ñu renforcer sécurité waaw tout d'abord di masawu alaaji Malick Gakou mi nga xamante ne loxoom damm na ci maa ngi koy dégg tey kii di ko wax euh, Ahmed dara ñu koy masawu mu nekk loo xamante ni dégg naa xeer woo xamante ni bii lañ ko sànni mhm. Eh, mu dal ci loxo bi ba def fracture xam nga ni kon xeer boobu daloon ci bopp. xeer boobu xeeru lan la xanaa muul la. <laughs> donc ñu ngi koy masawu di ko ñaanal mu daal de gaaw jóg ak jàmm. parce que loolu doy na waar. Eh, sooy maa ngi maa ngi dégg Cheikh Ousmane Touré. Mhm. Eh, dégg naa ko mu wax ci wax ju am solo. Mhm. parce que wax ji mu wax li tax mu am solo mooy enjeu bi. Mhm. ay alibaba yu ñu war a càmbar ñoo xam ne bii toje nañu alalu réew mi te ngir càmbar leen faaw ñu taxawal haute cour de justice am majorité assemblée nationale mën koo taxawal pour atte leen ñoo xam ne bii na ko waali bu Juuf Bodian waxee woon tëdd nañ ci ay milliards dana leen jaral lu ne ngir sàmm seen alal jooju dëgg la bul xam ñaata lañ mën a fay. Hmm. pour. gàllankoor indi ay jafe-jafe gàllankoor parce que ñoom dañu jàpp ne. Hmm. kenn dong moo mën a tax loolu ne. Hmm. mooy waa ji di Ousmane Sonko. ñu éliminer loolu nag dafa war a tax. sécurité ñu war cee bàyyi xel bu baax a baax xam ni leneen ministres yi daan nañ fi jaar mais bii situation bi moo nekk situation bu exceptionnelle. mu yëkkati dossier yu mag beneen situation la. boo xamante ni bii dañ ñu war a euh, aaral Ousmane sonk bu baax a baax a baax baax a baax loolu moom lu ñu war a def la. moo tax bi mu ko waxee démb dama ne wax dëgg fa yàlla Cheikh Ousmane lii mu souligné euh, mbir la moo xamante ni bii moom état war na ci bàyyi xel bu baax a baax. Mm-hmm. parce ñii du ñu ay politiciens yu normal. déedéet. xam ngeen leen normal luñu jege normal te bëgguñu yëf yi yegg Ousmane ko li muy def mi ngi kaf di ree mm. di leen di wàññi sax station bi waaw di leen draayee di leen draayee di kaf ak ñoom xam nga bi mu wax sëñ du baar Dolly waaw ne doxuma di bonde xam nga loolu ah sànni na ko benn na ko xam nga loolu kii la quoi maanaam mbég kii la quoi maanaam genre clashante bu neex la quoi mm-hmm. comprendre nga non c'est gis nga politique loolu dafay wàññi tension bi. mu jadit na bàyyi bon et pourtant lu ne am na. <laughs> mais terewul mi ngi kaf mi ngi rey hmm. mais les autres ñoo mënut a kaf munuñoo ree dafa am ci lu ñu focus ñoom te def nañ fii Abbas peut-être dañ doon làmbatu di xool essayé nañ ko fële. Hmm. def nañ leen xam nga bu ñu demee ba nga xamante ne xam Malick moo tax ñuy wax ne dañoo dagg. Hmm. demeewut noonu je pense. defe naa ni jege na sunk waaw xeer ba sax jege na ko laa wax. lan jege na xeer boobu dal ci Malick Gakou jege na ko de Ahmed Aïdara ni ma ko déggee mu wax tey. comprendre waaw. xeer yaa ngi dégg. est-ce que gars yi. waafu ñu waxi abet. daanaan abet si lan. kan moo expliqué. moom la àndaloon kat Amar ah, kat ah. ginnaaw ñoom la àndal moom. ñoom la àndal nee na Sonko expliqué na accident bi waaye soo ko amee nga bàyyi nga wax. maa di kan expliqué na ko. Sonko ko am bu fekkee ne am na ko waaw parce que. ñëw na ma jox la ko dégg. waaw <laughs> waaw def ñu A3 rek kon nga kii ko. waaw ñu déglu sax ñu déglu. place amu ci place am fële ci Koungheul essayé nañu dañoo essayé ndax nag wax dëgg yàlla kuy song Pastef da ngay xaru. kuy song Pastef da ngay xaru gars yi nañu xam seen bopp cuuj day yem ci palaasu cuuj parti boo xam ne Macky Sall yor na réew mi ànd ak ay généraux dem jënd lu mu mun a jënd ci ay armes lu mu mun a jënd ci ay grenades lu ne mu andi ko teewul yéen ñii ngeen taxaw jàmmaarloog moom ba jëlee ko fi waaye ma ne parti cabine téléphonique yii jàpp ni mën nañoo song Pastef nañu yem doyen Malick Gakou gaañu na waaye li mu doon tëb di wàcc ci oto bi malheureusement moo ko andil choc ba loxo bi xaw cee demee noonu ñu ngi koy masawu waaye li des ci campagne bi li des ci campagne bi ku jàmmaloo nag état état am jafe-jafe tey mu yor li mu yoroon boole ci yor état boo xëyee di ko song da ngay xaru na nit ñi yem. voilà. Mm-hmm. léegi euh, expliqué na moom. Mm-hmm. waaw léegi euh, Ahmed moom ne nee na xeer bi. <laughs> Assane lu Ahmed wax. Assane lu Ahmed wax Assane kay dee la ba waxee Ahmed. <laughs> nee na Assane bu day tuuki fii. <laughs> raak <laughs> ubbi soo jël Ahmed bàyyeegul jóg dóor la ñaari arrêt arrière. tibb suuf Ahmed ay dara. yàlla xam ne maa ko yow Ahmed moo gàkku du ñu tàggoo bu waxee kay xëy na ah gàkku ko wax. déet moom dafa nekkoon. mais gàkku. gàkku dañ koo nettali. gàkku gàkku kay xam nga ni bu waxee ci gàkku la déggee. mais en tout cas di wax ni son yi. Hmm. li soo ko wax nii. Hmm. parce que gis nga mbooloo mi nga xamante ne bi ñoo koy topp. Hmm. Euh, kafuñu. ku bëgg sa bopp doo leen ku bëgg sa bopp de. warul bëgg sa bakkan politicien waru laa neexal wala mu jox la dara nga ne yaa ngi jéem a dugg ci mbooloo mii di ci jéem dara. d'accord yaa ngi dégg. Hmm. nañu bàyyi li nga xam ne moom la ñuy def. d'accord ñii dañuy politique boo seetee da ci feetu la ñu ne. Hmm. boo seetee mbooloo Pastef bi ci feetu la ñu ne quoi maanaam même sax ñoom bu fekkee ne da nga leen romb sax ñu lay mbalak dañ lay mbalak mais euh, du ñu jéem a song pour xeex ak yow. Hmm. te loolu mooy charme bi quoi. nit ñi kaf ree parce que dañu bëgg la di set incha allah mu nekk feet nit ñi bëggee waaw ñi ñu gañee félicité ki gañe d'accord loolu nekk loo xam campagne bi daanaka jeex na de moom ah nit ñi daanaka jeex na de loolu mooy li nga xam xamante mooy li solo mm-hmm. waaw la le ah. premier daanaka jeex na de waaw naa jeex de yàlla na yàlla mottali amiin incha allah ñu dem ci jàmm ak salaam vote ci jàmm ak salaam génn ci ci kàttanu borom bi